bu mel ni yow boo yeewoo jug président Macky Sall euh, yebal la ne la ah bëgg naa nga ñëw jàppale ñu ci li nga xam ne mooy ndakaaru ñun mënuñu def lu rek lu ci kontaan di ko rafetlu di la encourager di la wax ne gore mu ngi ak yow parce que président Macky bi nga xam ne moo la yebal dafa mus a nekk ak ñun. yaa 15 jours mu ngi fi woon. def na fi visite bu mujj ayib mu yàgg fi yàgg nañu jëfal ci fànn yu bare bare bare yow tamit ñëpp xam nañ ko tey bu ñu yàlla musalee bu baax a baax ci li nga xam ne mooy mbas mi ci sa jëmm la parce que président Macky yow la wóolu ak ñi nga xam ne ñoo toftalu ci yow ngeen def liggéey bu mujj ayib ba Gorée yàlla musal ko Sénégal yàlla musal ko ci mbas mi donc kooku mooy Ablaye Diouf Sarr may nuyu euh, docteur Mandiaye Ndoye moom mënoon na sax seede parce que moom moo doon gérer comité boobu doon gérer wàllu mbas mi euh, ñoom ñoo ñu jàppale ba nga xam ne parce que diiru mbas bi bu muy metti bu baax a baax fépp ci Sénégal ñun yàlla ñetti cas rek la ñu amoon donc te loolu du dara boo xoolee li amoon ci àddina si yëpp donc ñu ko ciy gërëm tey nag euh, tànkam Euh, mënoon na jàppane rek ne dafa xat parce que tey boo nekkee candidat ville de Dakar mu nekk bés bu mujjee ci euh, euh, campagne bi Gorée bindoo ni mu bindoo nekk enclavé nekk ci diggu géej nga ne damay def force lu mu ma jaral depuis sànq bi ñu nekk yéen gis ñu ngi koy oo téléphone parce que am na ñeneen ñu koy xaar dakaar mais mu ne ma il ma yegg si Gorée du ma jeexal campagne te yegg si ma te loolu la def donc loolu rek kuy rek doy na ci jëmmu nit ki taxaw fii kii jar na wóolu pour dënk ko ville de Dakar nañu jàppale gore votel Benno Bokk Yaakaar jokkoo defar gore votel ko moom mu nekk ville de Dakar bu loolu lépp mëtee di ngeen gis ne njëriñu Gorée rek ngeen jëfal donc loolu mooy sama kaddu nañu jàppale Diouf Sarr jàppale euh, Benno Bokk Yaakaar pour que Dakar ñëw ci ñoom rahim merci beaucoup monsieur maire maa ngi lay euh, nuyu bu baax di kontaan si accueil bi ma am tey ak Gorée Gorée mënu ma woon sama campagne te ñëwuma tëje sama campagne parce que en vérité fii si Gorée la tëje ma campagne. parce que li ñuy def ngoon formalité rek. waaw. loolu nag li ko waral bari na parce que bu ñu ne Dakar ñu dénk ma ko ma war a nekk maire de Dakar def un programme Dakar bu bees dama war a comprendre que ne taaru Dakar si Gorée la nekk. la gan boo am au niveau international boo bëggee wan ko Sénégal waxuma sax Dakar. da nga koy indi fii si Gorée bon donc man en tant que prochain maire de la capital sama taar ak samay ambition dama ko wane waram ko war a wane fii bu baax a baax te incha allah au soir du 23 dès qu'on est installé incha allah da ngeen sentir ne en rapport avec moom ami et frère Augustin danañu déclencher un processus une transformation de l'île de Gorée en termes de satisfaction des besoins des populations di wax ne maa ngi leen di gërëm di nuyu imam di nuyu abbé bu baax docteur Ndoye maa ngi leen di nuyu di saluer mon ami frère Tidiane di wax véritablement que président de la République aussi mu ngi leen di nuyu d'ailleurs euh, dès la semaine prochaine le bateau ambulance de Gorée va arriver ici boobu la semaine prochaine tout est fait dana ñëw dañu xam ne bu ñu ko tey ñu ne gaa yaa ngi mais semaine prochaine rek incha allah di ngeen gis le bateau ambulance de Gorée ici accosté à côté un bateau boo xamante ne nag euh, bateau bu bees boo xamante ne président de la république moo ko jagleel waa Gorée monsieur le maire ñu ngi lay félicité si loolu. waaw merci. parce que xam nañ yan jéego nga si def. Ah. ban taxawaay nga si am. Hmm. mais président man ne Gorée defar naa leen bateau ambulance. mais aujourd'hui itam tey jii au niveau du ministère de la santé de l'action sociale. Uh-huh. jël naa benn ambulance bu bees jox ko Gorée mi ngi fële si embarcadère. parce que loolu mooy compléter la chaîne en matière de santé wax nañu ay préoccupations ci poste de santé bi par rapport aux sages-femmes danañu augmenter les ressources humaines pour au moins benen am beneen sage-femme danañu aussi doter le poste de appareil d'échographie mais bés bu ñu nekkee maire de Dakar aussi Inch'Allah avec monsieur le maire nous allons réaliser le logement de la sage-femme parce que dafa nécessaire que mu am fii à Gorée benn logement pour que sage-femme bi mën def fanaan parce que jigéen ñi mën nañu am tolof tolof guddi il faut que mu am ku leen traité bon nag monsieur le maire bàyyi naa leen ak li si des parce que suñu mébét mooy Dakar bu bees c'est un projet que je vous donné Dakar bu bees boobu nag au soir du 23 dès le lendemain on va entrer dans le train de l'émergence pour que à Gorée comme dans les dix-neuf communes de Dakar ñu ne émergence taxaw na président Macky Sall jàpp si bu baax pour que Dakar nekk beneen Dakar Dakar boo xamante ne day indi réalisation monsieur le président maa ngi leen di remercier di très bonne chance incha allah pour la Coupe d'Afrique parce que ah Sénégal am na ñu koy liggéeyal. am nañu koy jëriñ mais bokkoo si ñu koy jëriñoo xam nañ la dans ce pays là sa tur rek signature la en tout man bokk naa si sénégalais yi la respecté yi la naw te bu ngeen amee doom bu mel nii a ah, am ngeen loo xam ne dëkk yu bari bëgg nañ ko amuñ ko bon dëkk maa ngi leen koy dénkaat di leen wax ne Augustin Augustin Sénégal day gore na dëkk bon nag boot leen ko rogante ko maa ngi leen di remercier